ah mbokk yi ñu ngi ñu ngi leen di bëggee bu baax di leen char fii ci Sénégal Buzz ni ñu koy defee rek ah ak yéen di leen àndal ak ñi nga xamante ne moo di bokk internet Sénégal Buzz di leen indil li nga xamante ne tey moo leen di neex moom ngeen di bëggee waaye ni ma koy defee rek tey nee naa leen tey bésu tamxarit la bés la boo xamante ne feet la feetu Sénégal la feetu àdduna la ba ni ma koy defee rek saa su ne nee naa leen dinaa génn tey dugg ci ay këru ndaanaan seeti ay ndaanaan ah waaye maa ngi fii nga xamante ni moo di NGB ñaari tali certifié xale boo xamante ne nag dootuma ko présenté Sénégal dootuma ko présenté àdduna reer bi nag waaye damaa yéex a ñëw dama koy bàyyi rek mu nuyoog mbokk Sénégal galas maa ngi lay béggee mais mon ami El maa ngi lay ziyaare bu wér a wér di sant yàlla bu baax di julli si ci bi salallaahu alayhi wa sallam di ñaanal sumay ñaari waajur comme ni ma ko waxee chaque jour rek fu ñu tëdd yàlla leen gën a fi ñu jugee barke di nuyu tamit fi nga ma fekk nii fi nga xam ne mooy suñu kër cosaan xam nga mooy fi mooy ngiwal daal yaakaar naa boo duggee ko ñu Abdourahmane Fall ci laa la ñaari tali boo laajtee ngiwal fii la ñuy indi ñun fii la ñu juddoo fii la ñu yoroo fii la màggee kon amuñu lépp fii dafay faral ne événement su amee dañuy bàyyi suñu kër yi bàyyi lépp daal di ñëw fii muy tabaski muy korité muy ak lu mu mën ci doon ndax suñu yaay mi ngi fi muy suñu yàkku suñu rakku yaay muy Adja Ndeye Faly Seck yaayu Yacine ak maam jaara ñu koy nuyu baax na di nuyu sax suñu maam Daba Mbaye du yu waa kër gi yëpp daal waaw du nuyu waa kër gi yëpp ah noonu la ko defee ah ndax ni mu koy waxee rek loo gis lu ne rek cosaan da cee am solo ba taxit bu ñuy door dañuy dew fii nga xamante ne moo di këru cosaan gi reer bi raw na ma nag nu ngeen dundee feet bi tey non non raw na la mais rawagula ndax gis nga bool yaa ngi ne xam naa ba si kanamee tuuti après nga am noo def ak moom daal hélas waaw waaw waaw ndax xam nga kër gi géwél yaa ma gën a xam dañuy togg togg lu macha allah ba bàyyi sax boolu gan gi kon yow bu si kanamee yaa caama hmm. mun naa leen dugal fee si ginnaaw ngeen am noonu def waaw noonu la fay demee quoi. ndeysaan mais nu ngeen dundee fête bi tey fii ci kër gi. waaw fête bi moom lañ koy dund sant yàlla bu baax a baax hmm. comme comme yeneen fête yi chaque jour rek parce que bu fekkee da ngay danga nga da nga da nga am fête nga dund ko ak sa waa famille mhm. xam nga say rakk mhm. say mag say nijaay say tante mhm. say jarbaat xam nga say am di jàmm say yaay say maam ñëpp xam nga loolu feet bu du def lu neex daal te xam nga ñun comme ni ñu koy defee mooy li ma la wax yu mel ni su amee dañuy bàyyi suñu dëkkuwaay lépp ñëw fii ndax lépp fii la sosoo xam nga kon bon defar nañu cere cere bi nag am na ginaar am na yàpp am na laxas am na bopp xar mais ñu demee bay waaj def cooki fin si lañ tuur meew mi nag waaw meew mi xam naa meew ngeen ci def non waaw mooy bu baax bi non boobooy bu baax bi booba caama xam na meew mi <laughs> booboy meew bu baax bi <laughs> boobu booboy meew bu baax bi uh-huh. waaw vraiment mais hélas mbaa cere bi gaañ gaañu la cere bi te la image bu garaaw la ngéwél day neex gis nga lii mel na ne daal ñoom feet bi daal ñu ko seen bàyyi yanoo seen maam yanoo ko ñoom noonu la ñu yanoo feet bi taal waaw gis nga gis nga gis nga gis nga këru ngéwél moom këru ngéwél nii lay demee des gis nga xale yi des dañuy fàttali sax ñun bañ ci tolloo ndax noonu la noonu lañ laan def di jël gurtu yi di jël pot tamaate yi di ko bëtt di ko defar di ko takk xam nga di ci jouer loolu mu nekk loo xam te ne daal lu nice la daal noo noo elazal tey xam naa ne daal dugg nga ngéwél waaw loolu moom dugg naa ngéwél caama dama bëgg nag ñu door ak ngéwél nag mu nuyoog ñi nga xamante ne mooy mbokk internet Sénégal Buzz Galas nuyul ma waa Sénégal Buzz 221 fii ci ngéwél waa Sénégal Buzz ma ñëw kuy tëgg bi noonu maam danga naan jëre ma cembeey saaxaya nga lambaay ne ko jëre ma cembeey saaxaya nga lambaay jëre ma cembeey saaxee ak rambaay man daal doomi géwël laa man daal doomi géwël laa man daal doomi géwël laa ar bi daal duma ko bàkk yenn dama jëy sa mbox loolu sama doomi géwël laa yaay ma doonu samay maam wax leen doomi Jool la ar bi daal du ma tabaat kenn dama day sa ndox loo sama géwal la nday sekay sama yaay nday faali sekay sama yaay ajaajaxu sekay sama yaay Ahmadu ilay magi mam jaare bu so baali elas ma doonu sama imaam arbi baali dama tamba kenn dama tay samba xulle samba ay waay ay géwal lanu ay géwal lanu ay géwal lanu yaa seet si caama dama lay way mbokk yaayu Elhadj caama dama lay way doom yaayu Elhadj caama dama lay way Sénégal bés 221 waxal Sénégal bés 221 waxal Sénégal bés 221 waxal Sénégal bés 221 kon caama dama lay way e dama lay way caama dama lay way hélas dama lay woy e bay xaali tama Thank you. ñoo seet si kok kok kok kok kok kok kok eh ne ko caama ki nga seet si ne leen élance ki nga seet si xoolal ey li ma yàpp ci béy réere ko ci ñàng fanal ko ci ween tëdd ko ci lal bu nooy bu ma daanoo mu tas keneen du ko faj yàlla def na ko xoolal kuy bégal xol yi faaw ñu lay bégal ah caama waxal ne ko sëñ Fall looy ñaasi kanam loo seelam seelam du dañ ne ko sëriñ Fall looy ñaasi kanam loo seelam seelam du dañ Bamba Bamba góor gu ko sàkkal morom loo jur mu dee foo dëkk mu lakk loo yaakaar mu tas ku la tooñ nit dee lay duma wax leen jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba eh jàmbu ko ci waxul gore woo ku ko waxul gore woo mboolem ki ñaan dala dal yàlla noppi na asamaan suuf si weer wi nit ñi samaan Seex Rafaal yow la yow la maam Seex Rafaal yaa ngi may yëngal yaa ngi may yëngal hélas di nga ma yëngal yow hélas yaa ngi may yëngal bul ma yëngal mbokk wi yaayu caama jom daa daa bari miɗum yoro faali alkare banna ndiaye soda dewar miɗum yoro faali e eh, soda dewar miɗum yoro faali e eh, soda dewar miɗum yoro teel eh. ma fii teel ma fii rek hélas e ma fekk boo gisee ma sawar naa la wax loo xamante ni boo ko déggatee maa la ko waxal Ndeye Faly Seck yaayu Mame Diarra yaayu Yacine yaayu Matar chéri Awa borom Italia yaayu Matar chéri Awa borom Italia hélas ñëw nga kër ngeewal ne ko ñëw nga kër ngeewal la nopp xel mu dal caala dépense bu doy jëkkër ju la nopp ne bu doy jëkkër ju la nopp ne bu doy jëkkër ju la nopp eh wuyaay kok kok kok kok kok kok Ahmed Ndiaye nday Lissa Konaré yaay seeni Ahmed Ndiaye nday Jula yaay seeni Ahmed Ndiaye nee nday Lissa nee leen nday Lissa naa oh, oh. eh, eh, eh, piti piti piti masina piti masina Mame Fatou Bol Petit Machine la Mame Fatou Bol et eh, Petit Machine la Mame Fatou Bol. Eh, Khadija yaayu Xaadim ak Aïcha Ayda Kebe kokoy Sori May Ayda Kebe kokoy eh, wax leen ko Ayda Kebe kokoy Sori May eh Ayda Kebe jëkkër daa lay boot nga ni noonu sa dara du lang mbay daa laa boot nga ni noonu sa dara du lang jëkkër daa lay boot nga ni noonu sa dara du lang mbay daa laa boot nga ni noonu sa dara du lang xoolal hélas mbokkum yaayu caama hélas barki dem moo njaay naa la buy taw kenn du sobere du pël li wëree ku ne xam nga kala man eh, bërëmbër ku ne xam nga kala man danga ko du nangu bërëmbër Saña Saña borom la trois Khady Saña eh wuyaay kok eh kok kok kok ñëwal eh xale gana damay dem ba sàkkal seeti xaali tama damay dem ba sàkkal seeti xaali tama eh damay dem ba sàkkal seeti guuru caama bay xaali tama yaay góoru caama bay xaali tama yaay góoru caama lu ma nekk yaa nga ca lu ma yóoru yaa nga ca lu ma nekk biir nan ko jagal jëme jaxaat jaan na sax nan ko jagal jëme jaxaat jaan na sax nan ko jagal jëme jaxaat jaan na sax nan ko jagal jëme jaxaat jaan na sax eh xale yi eh xool leen ma nee leen fii eh kur ci biir kenn nee leen gàllankoor kur ci biir kenn ci biir gën gaalaasa koy dëbb eh kur ci biir gën gaalaasa koy dëbb eh kur ci biir gën gaalaasa koy dëbb eh eh riiti ko riiti ko riiti ko riiti Séeri Galas danu koy way e Séeri Galas danu koy way e Séeri Galas danu koy way e ana ñu ko bëgg ana ñu ko bëgg ana ñu ko bëgg ana ñu ko bëgg ana ñu ko bëgg e Salsalato Salsalato Sénégal Buzz 221 Sénégal Buzz 221 mooy site bi mujj a moo gën siiw Ahmed Ahmed Ahmed Ahmed Ahmed fekkee lii waaye caama doomu yaayu hélas suma màggetee mbaama sippi sama rampalaas dina jafe hélas bu ma màggetee mbaama sippi sama rampalaas dina jafe Thiama Thiama barki Demba bi ñu dajee yàgg hélas newoon naa la ale boo gis ale boo gis am na retour ale boo gis ale boo gis am na retour ale boo gis ale boo gis am eh, bi ñu dajee mag yow. xamoon naa ni daanu daje Youssou Ndour moo ko waxoon Omar Ben daanu daje eh Youssou ko waxoon Omar daanu daje eh eh xamoon naa ni daanu daje Youssou ko waxoon Omar daanu daje eh xamoon naa ni daanu daje Youssou ko waxoon Omar daanu daje eh jaamo mën a bongo taxuta mën a bongo bongo yaa ngi nii bëgg bongo taxuta mën a bongo bongo yaa ngi nii bëgg bongo taxuta mën a bongo bongo yaa ngi nii bëgg bongo taxuta mën a bongo bongo yaa ngi nii eh lii may def dama ko jàng doon ko ci samay maam waaye hélas yaa seet si galas galas bongo le bungement du peuple mbokk mi caama su may jàkkaarloog yow daa may sawar waaye yow kuy géewal galas yaay géewal sa juuram ñaari maam yëpp ay géewal kuy géewal galas yaay géewal sa juuram maam yëpp ay géewal waa xanaa bëggat rek caam kontaanaat ndax fu mu nekk nii yaakaar naa ne maa dugg ngéwél lu ma fi dal rek mën a lu ma fi dal rek mën a ba taxit yaakaar naa ne noonee na ko mbokk internetu Sénégal Buzz yi bëggee noonee la ñu taajo boo nee ak ki nga xamante ni moo di Gallasan ah, ni ma koy waxee rek ndaanaan la Sénégal koy bàyyi xel àdduna koy bàyyi xel ba taxit bu ñu toogee ak moom wala ñu jàkkaarloo ak moom rek day neex ah mënta yomb Gallas lii lan la waaw waaw mais xam nga hélas dama la wax léegi nii la yàgg caama xamoon daan daje ndax yaakaar naa dem moo Ndiaye am na lu ñu jot a def matul ñaari fan wër na àdduna bi te keroog bi ñu ñëw def loolu indiwuma bongo yi indiwuma tama yi loolu nag mu nekk lu ma dencoon moo tax ma ni la woon ale boo gis am na retour ndax dama bëgg su may jàkkaloog caama di jàkkaloog yow ma génn doole génn yéene génn am am génn mën-mën ndaxte yaakaar naa ne tey tubaar fa kàlla macha allah li nga xamante ni moom nga ma defal fii xam nga dama gën sawar da ma fekk samay biiru mbokk kenn raxuñu macha allah ñun ñu nga gis ñëpp sama yaayu noonu taxaw mooy sama rakku yaay Adja Ndeye Faly Seck yaayu Yacine ak maam Diarra bu la neex nag neen madame Seck ah Koro Ibrahima waaw kii nga gis mu yor paan bi ah. sama jabaru nijaay la man maa koy tooñee naan ko piti masina maam faatu sekk noonu ñu bokk lépp maak moom muy ndaanan tamit man lii muy def moo tax tey bi nga ma waxee émission bi rek man la automatiquement nañ ko fekk fi nañ ma fekk fii parce que fii laay gën a sentir ba ma fekk fii si laay gën a mën a joxe Papa Diouf a ngi noonu yaakaaru kuru borom daaru maam Thierno ndamal daaru ak sama yaay ju baax ji waaw Mouhamed a ngi noonu ak Ahmed moom lañ tuddee Seydina Mouhamed yaa ngi dégg waaye Pape Modou Ngom nag mooy mooy playboy Pape Modou yaa ngi dégg mooy hélas bërki démb bi ñu dajee ñu def lu rafet lu ñu def maag yow ma ne la bu yoon jeexul wax su lu jeex dinañ daje gis nga live fi ma joué nii bëriwul sax lu ma koy def ni par hasard ni si interview yi non non non ñii mën nañu ma seede instant bi nii live fi may def nii bi ma def nii yéen laa ko defe parce que man bongo yi dama ko fonk fonk bi nga xam ni du chaque instant lay génn ndax ginnaaw yàlla mooy sama big mooy ma fooy mais koo xamul noo koy def nam la def moo tax artistes yi nañ fi ndaanaan yi bëri nañ fi mais Sénégal Buzz 221 ñoom dañoo séddoo Galas Bongo la Bongo man di peuple loolu moo tax il fallait que yi boo la may seet si day day xaw a métti day xaw a métti li tax muy métti mooy dañuy génn lépp joxe ko dañuy génn lépp joxe ko macha allah mën ngeen li ngeen def am ngeen talent bi rafet na xanaa kay di wax ni yéen ñàkk leen a seetaan wóorul nee naa la barki Demba Ndiaye si ñaari fan li ma def ak yéen war na àdduna ba tey moom lañuy waxtaanee macha allah te lépp seen mbaax seen ñàkk ñaan. Galas Bongo nag li ma la waxoon rek Galas Bongo Sénégal la wax naa ko waxaat naa ko dama koy répété waat du ma la président des bongo man di Sénégal du ma la roi des bongo di Sénégal du ma ni li may def maa ko dàq Sénégal déedéet waaye xam naa ni. bëri naa ci ay soppe macha allah te bëri naa ñoo xam te ne bëgg nañ ma. tur bi nga man di peuple foo may wax eh fii ku fi def lu baax ñu waxal la ko yaa def. dalal yaakaar naa ni fu mu nekk nii nag kontaan nañ ah xaar ci mbedd mi bëri na artistes yu ñuy xaar bëri na mais fii laa bëggoon a dooree fii laa bëggoon a tàmbale ndax jàpp naa ne bu ma fi dooree moom mooy neex na ba fajar non non non fi fi fii nga doore nii fii nga doore nii neex na fi nga doore kontaan naa si mooy li ma la wax rek nit bu la askan bi tegee fenn da leen koy delloo nee naa la askan bi ñoo ma tànn ni ma galas bongo la bongo man di peuple yaa ngi dégg nekk lu ma neex nag ak ku amul ñëpp laay jiyal aar bi may def képp ku bëgg sentir ma si yaa xam da am sa ngénte yaa xam danga am sa céet mariage takk ndayale magale yebbi lépp boo ma woowee dama lay defal ba mu naages boo amee baax na boo amul baax ndax nit ñi tey garabam te yaakaar naa xaalis dafay jeex des fois nit bëgg la bëgg li ngay def ndeysaan mais du am sax njëgu lu lay fayee mais si loolu ngay xool te ku ci nekk ci li ngay liggéey ci ngay baax ku nekk si li ngay liggéey si ngay baax nee naa la galas bongo daal ku ko soxla boo ko woowee di nga am li nga bëgg tubaarkalla macha allah 77 033 61 40 77 033 61 40 nga jàkkaarloog le bongo man di popul nee naa la xorom si ma yàlla may ma ànd moom du ma ni maa fi mën waaye man saf naa gaañi xorom si ma yàlla may ma ànd moom duma ni maa fi man waaye saf naa gaañu xoolal Ndiaga Mbaye ne ma ma ñu ne ndax ku ne am na koo saf balel ma ma ñu ne ndax ku ne am na ku mu saf xoolal nga ni man da jee Kébémer taata gin Louga gi neew padoor silma xak jàpp sa fulla seex sa fayda budul ay sax jàmmal hélas ngor gi ci yow xam ngor gi ngor gi ci yow fulla gi ci yow fayda gi ci yow nangoo liggéey gi ci yow bëgg sa ndey gi ci yow mbokk mi yaayu caama eh yaa ma leen gënal dama leen ko rusoo na wax eh yaa ma leen gënal dama leen ko xoolal maam cooroon la sek jere ma cembe saaxa yaa nga lambaay waa góore yéen kontaan naa waa góore yéen sek jere ma cembe saaxa yaa nga lambaay waa góore yéen kontaan naa ki ma ca mbey saxa yaa nga lambaay waaw góor yéen kontaan naa si ma ca mbey saxa yaa nga lambaay ndey sekay sama yaay kontaan ca ndey ndey sekay sama yaay waaw góora yaay kontaan naa ndeysaan mbokk yi yaakaar naan sa résultat génn sa xol bi ki nga am ndeysaan yaakaar naa ne loolee. dëgg la maman ci nga bokk. ndey ak baay te yemalewu ma ak nag ku yàlla bind. ndax jiital njab jaboot jabaram jiital ay doomam fa kàll macha allah ànd ak njabootu magam ñu mu bokkal ndey ak baay at mu jot ñuy ñëw di tabaskee ci sama kër di fi tam di fi korité tubarakalla macha allah mel ne ni sama mag ji jógewu fi. waaye nag doo ñàkk fayda doo ñàkk jom ndax kenn du nuru bokki jàmm ku ne say bokk ngay nuru te yow sa yaay mi nga woy lii rek liggéeyam feeñ na macha allah yàlla jëm kanam ndax ajaratu day sekk la ñu woowee sa yaay Kole jaay rek kay yaayam Kole Ndiaye Fatou Koura yaayam Fatou Koura Koura Diop. Koura Diop Anta Nungaan Bakar Koddu Ndate Mbay Lat Fay Ndeela Ndambaaw ma juuf kuli càngaay ma Samba Juuf Jàllo borom Jàllo ma ci mbay seen Anta Maali Gànna Pa Farma Samba Saane sa pende mooy jëri jongomee kàddu géwél yow yaay doomu géwél piir yow galas yaay doomu géwél piir yow ku fiy géwél ca rek yaay mbokkam da ngeen a yàkkamti moo tax ma dagg ko fi waaye kii li ma ko mën a wax a bari kii yal na la yàlla la fal cat ko yàlla lafal cat noonu la demee ah li ma koy waxee rek benn nen bu ba taxit dañu ko maynees rek ku ci ne càpp ah ndax bégal gi nga xamante ne lu neex li nga xamante yaa ngi koy defal sénégalais ñëpp kontaan ci waaye fu waaw lu mënta jeex lu nan la ko wolof waxee lu duuf lépp xajul ci cin li ah. lu duuf nag li xajul ci cin li noonu la demee fu nekk nii li ñuy xaar bëri ñu ñuy xaar bëri waaye rek xam nga rek ni mu demee rek moo tax noonu lay demee galas lan ngay tàggatoo bokk internet Sénégal Buzz. maa ngi kontaan si yow El di kontaan si yow Thiama ndax nag yéen suma xarit ah yéen ñaara ah. Thiama mhm. doomi ndeyu El Hadj yéen ay xaritu Galas Bongo maa ngi leen ziare bu wér ndax taayewu leen ci man mhm. xeebu leen li may def xam nga di nuyu nag ki nga xam te ni mooy Chérif mhm. Aziz Fall Tilala sama maa ngi koy ziare bu wér di ñaanal Chérif Abdourahmane Fall Tilala xaadimu xaadim yàlla na ko yàlla yërëm yokk leeram fu mu tëdd. di nuyu ki nga xamante nag naka mooy sëñ Abdou Latif borom Kéemaan sëñ Abdou Latif borom Kéemaan sama sëriñ sama xarit nekk nit ku baax di ziare bu wér tamit ki nga xamante ne mooy soxna Ami Gueye mu sëriñ Baara borom ñaari télé borom Grand Dakar Ami Gueye mu sëriñ Baara Mbacke di nuyu soxna Nafi Fallou Fall di ko ziare bu wér waaye hélas maa ngi nuyu ki nga xamante ne nag mooy Adja Daba Boy voyante bu mag bi nga xamante ni soo da bajaan la ñuy wooye yaayam Adja Daba booy yow loo am teral nga sa ndey teral nga sa baay teraa nga jomm la maa ngi lay ñaanal nag yow taalibi Serigne Fallou boobu li nga xam te ne yaa Adja Daba Boye yàlla na la yàlla sàmm bark Serigne Fallou mbake jaabu jëf jaajëf waay noonu la tàggatoo ñi nga xamante ni moo di mbokk internet Sénégal Buzz ah, du nuyu waat bu baax a baax suñu maman boobu mu tudd léegi di Adja Daba Boye ah. moom it kenn du moom démb bëgg nañ ci moom la nga xamante ne la def 2STV la kontaan nañ ci moom bu baax ah ndax kenn du moom mi ngi jëxal mi ngi jëmale réew mi kanam mi ngi dimbali nit ñi mi ngi jàppale nit ñi ah. Ndeysaan jeex na loolu mi ngi sa loxo ah mais kontaan bu baax baax ci gars yi di leen jox dig ci beneen numéro di wax nag ngeen topp ñu jeexagul ñun ak yéen ci kanam incha allah ci am ñu daw. ne ko Mbadou Tour fii gëj et hélas Mbadou Tour fii gëj et Diama Mbadou Tour fii gëj hélas Mbadou Tour fii gëj Sénégal Buzz 221 sama site sama site. Sénégal Buzz 221 sama eh ana pël pël bu rafet ana pël pël bu rafet doomi ndeyu caama yaay sama xarit pël bu rafet doomi ndeyu caama yaay sama xarit pël bu rafet borom kaw la la way pël bu rafet jigéenu jigéenu jigéenu jigéenu jigéenu eh caama laay wayal jigéenu Kéba Kanté pël bu rafet jigéenu Kanté borom borom Bawol TV